أصحاب المجد والسماحة والنوال مشاهدي الأوفياء من تلفزتكم المفضلة تلفزيون فيوتشر ميديا نحييكم بتحية الإسلامية ونقول السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem ko xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog seen télévision Futur Média nuyu leen ziar leen ndokkee leen bu baax a baax ñaanati borom bi subhanahu wa taala yàlla mi am jàmm salaam suturu àddina ak yan yàlla loolu ñu ko defal ñaanal mboolem xalif généraux yi na ci biir réew mi ñaanal njiitu réew mi kilifa réew mi yëpp mi ngi noonu ñaanal xalifa bi Serigne Babacar Sy ibnu Alaaji Mansour xalif général des Tidiane ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér lool sëriñ Pape Malick si sëriñ Maodo Sy Abdoul Aziz sëriñ Babacar Abdoul Aziz sëriñ Mansour Sy Abdoul Aziz mi ngi noonu mbokk yi am nañu mbégte jàkkaarloog yéen tey waaye tey jii nag ñu war a def plateau spécial di waajal lu doy waar di waajal lu rëy waaye ci njiitalu xalifa bi waaye nag ci njiital ci taxawaayu seen Mouhamadul Mansour soppeem yi ne ci biir réew mi nekk bitim réew rawatina fii ci mu dëkkee di Sacré Cœur incha allahu taala bis bu mag bi nuy waajal muy bis bu mag a mag aljuma ji lay doon incha allahu taala di la 21 loolu nag bu ko kenn kenn wute ñu ngi nii toog ak Seydi Mouhamad Euh, si euh, di doomu Seyd Mouhamadul Mansour si moom itam incha allah taala ci njiitam war a waxtaan ak moom toog ak imam Moussa faal yaakaar naa mbooleem euh, ñiy suivre télévision bi wala di xool li xew ci àdduna bi di nga ko gis muy sunu imam di imaamu Sacré-Cœur ñaanal ko yal na ko yàlla yokk dëgëral incha allah daa daañu ko jox kàddu léegi président xalifa gay moom itam ñu ko jox kàddu imam Diallo nu ngi koy nuyu moom itam mi jotaay bi Khalifa Gassama di borom xam-xam bu mag a mag moom itam mi ngi fi présidente euh, fédération bu Seydi Mouhamadul Mansour Abdul Aziz moom itam incha allahu taala mi ngi fi ajaa Gadda Ndiaye dina wax ci turu jigéen ñi euh, sunu baay alxaaji Ma Diop Ba moom itam mi ngi ci jotaay bi alxaaji Pape fay moom itam mi ngi ci jotaay bi li ñuy def rek mooy jël kàddu gi jox ko sunu imaam mu ubbi jotaay bi mu bàyyi ko mu nuyoo di imaam xaaji Mousse Fall. di imaamu ratib bu Sacré-Cœur 3. lay nuyu di la delloo nuyoo Haj Pap di nuyu mboolem ñu ñu bokkal jotaay bi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu mboolem ñu defal jàmm ba kàddu yi jib bëgg-bëgg sunu borom te seytaane bu mu ci am yoon incha allah. jërëjëf imaam am nañu mbégte Cheikh Mouhamed Bachir sëriñ bi nu ngi lay nuyu nu ngi am mbégte bu baax a baax a baax bisimilah. macha allah ñu ngi lay fay macha allah Haj Pap di wax aouzu billahi samil alim min acheytaani rajim wala hawla wala quwata illa billahi al ali al alhamdulillah alladi bi nicmatihi tatimu salihat rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim di nuyu mbokk yi bu baax a baax di leen wàcce seen wàccuwaay di leen ziyaar kontaan nañ bu baax jërëjëf jërëjëf an jërëjëf si incha allahu taala daañu del siwaat léegi euh, ñu jox Mouham imam xalifa euh, euh, président xalifa Gaye moom itam la noo jox mu nuyoo ba la ñu dugg ci waxtaan wi seen xalifa nu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax bismillahi rahmaani rahim xaaji Pape ñu ngi lay fay nuyoo di nuyu bokk yi fi daje yëpp di ci jiital Mouhamadul Basir si ak Imam Moussa Fall ak bokk yi ostaas yi fi bokk a toggandool yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziyaare di leen wàcc seen wàccuwaay. Euh, xaaji xalifa Gassama moom itam daañu ko jox kàddu léegi. Euh, nuyu jigéen ñi ñoom itam ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam gox boobu dem nag euh, la ñuy def mooy imaam mooy jiite waaye tey plateau bi tey incha allahu taala dañuy njëkkee euh, ci imaam Moussa Fall moom itam nga xam ni moo nay mooy imaamu gox bi laaj ko gox bi naka la tëddee laaj ko diggante seen Mouhamadul Mansour Abdoul Aziz ak gox bi nga xam ni fii la dëkkee muy xéewal goo xam ne yàlla ko defal waa sacré yàlla defal ko Ndakaaru dëkk ak ñoom yaa ngi dëkk sa mbokk yaa ngi dëkk ak nga xam ni yéen a bokk benn maam ndax Abdou Boli Fall sa maam euh, Siré Makhtar Fall mi ko jur euh, moo moom la njëkk jox moo jëloon Fawad ndax Fawad wele sa maam ki ko jëkk denc mooy euh, Babacar Ñang am ca benn doom bu jigéen bu ne fant Ñang Babacar Ñang ginnaat dina sa maam Siré Makhtar Fall jël ko am ca sa maam Abdou Boli Fall mu dem maam Ousmane jël ko am ca maam yi Sidi Mouhamadou Bachir Cheikh Sidil Hadji Malick ngeen gox ak euh, ndik naka ngeen dëkkee ci gox bi ak lana waral euh, toog ba mu yàgg rek ne faw euh, ren defe naa gàmm gi mooy première édition ñu jiital ci Seydi Mouhamadul Mansour Abdoul Aziz Imam Hadj Moussa Fall. jërëjëf tabaarakallaahu sëñ popp ñu ngi lay gërëm ci sa générosité intellectuelle tabaarakallaahu li nga wax dafa am solo ndax Sacré-Cœur 3 dafa am nu ko yàlla bindee muy xéwal xéwal boo xam ne dañ fi dëkk ay kilifa. sëriñ Mouhamadul Mansour Abdoul Aziz bokk ci kilifay gox bi euh, ci bi jumaa ji nekkee bayal ba fi ñu toll tey tabaarakallaahu xelam xalaatam alalam ak xam-xamam génnu ci bi ci des mu nekk un fédérateur discours am ku koy dégg xam ne macha allah sëriñ la waaye citoyen exemplaire la li tax mu nekk un citoyen exemplaire mooy dafay inciter ndaw yi à ce que ñuy góorgóorlu ci wàllu xam-xam ñuy góorgóorlu ci luy doxal réew waaye itam ñuy sàmm seeni valeurs yi nga xamante ne mooy les valeurs ancestrales ci wàllu diine ak ci wàllu cosaan ba tax na moom dafa dëppook jagu maanaam bi ak koñ bi dafa dëppoog Sacré-Cœur 3 ñun ñoo koy jiite waaye ci ndigalam lañ koy jiite sunu wayjur la woon Imam Cheikh Ahmed Tidiane Fall ñu jiital ko mu jógee fi ñoom ñëpp ñu bokk dëppoo teg ñu ci seen kanam waaye na ci seen ndigal macha allah muy koo xamante ne macha allah buñ ko gisee suñu xel day dal xàmmewul murit xàmmewul tijaan xàmmewul xaadir xàmmewul laayan xàmmewul sax ak bokku ci diine islam moom wala xat karam naa bani aadama lay dund képp kuy doomu aadama jox na la sa cër ba mu mat boo dajeeg moom tabaarakallaahu ci mbedd mi ni muy jàmm santeek yow boo wul sa loxo du rocc bosom ni nga ko yàgg a gàmmoo ci sifaatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xam-xam yu baax ya mu ñuy jox ci orientation ya mu ñuy jox ci ñaani tam yi nga xam ne bu ko ñaanee rek du gis ko dalam ak yaram ak li yàlla def ci moom macha allah allahuma la adurru kooku ko bëgg a fay na nga bàyyi ba le 21 nga jéem loo mën ci sa xel ci sa xalaat ci sa matériel ak lu mu mën a doon nga jàpp ci bis bi ndax macha allah ku ko defal maanaam tabaarakallah fecc woo kóllëre yal na yàlla may ñu àggale ak jàmm incha allah. jërëjëf imaam am nañu mbégte euh, bala ñuy ñëw ci sëriñ bi damay jël kàddu gi ñu jox ko euh, président xalifa Gaye mi nga xam ni moom itam moo jiite fédération bu euh, soppey Seydi Mouhamadul Mansour Abdoul Aziz yëpp moom la ñu kàddu gi nag mu ñëw wax ñu lan mooy fédération Mansour Seydi Khalifa fédération bi fu mu toll. te it euh, lana waral euh, organisation bu mag bile bëggoon téléspectateurs yi jàkkaarloo ak yow gën koo xam. Euh, lii ngeen njëkk a taxawal lu bees la ci àdduna bi ndax première édition nekk gàmm gu mag ci njiitalu Seydi Mouhamadou Mansour Abdoul Aziz nga expliqué fédération soppay Seydi Mouhamadou Mansour yi. tabaarakallaahu Haaji Pape ah nga ma naa pour tontu ci ndax fédération li ko li waral bis bii tey dafa nekk nit koo xam ne kii nit ku fédéré la nit koo xam kii nit ku social la nit koo xam ne kii nit ku bëgg ay nit yu ànd lañu tabaarakallaahu eh, ba tax na daayira yi nga xam ne dañu aji woon ci moom yëpp moo leen wax ne leen na ngeen fédéré te bu ngeen fédéré woo àndandoo takkandoo seen buum di yëkkateendoo di tegandoo tabaarakallaahu di dimbalente ndimbal li nag mu yem ci daayira yi rek wala ko ngeen bokkal tariixa wala ku ngeen bokkal nekk jullit waaye bu leen ko yemale ci loolu ko ngeen bokkalul diine sax doomu aadama rek wala mbindee fu mu yàlla mu mën a doon rek fu ngeen ko fekk mu loru na ngeen ko dimbali na ci daa daayira yi fasante ko ci gox yu bari na ngeen wut ay commission yoo xam ne yi fa tabaarakallaahu nañuy nemmeeku waa quartier ba gis fa koo xam ne ku loru la wala ki ngeen jàpp ci dimbali ko fa tabaarakallaahu na di fexe weer wu jot na ngeen daje ci benn gox daje fa waxtaane wut benn ustaas mu di leen di waxtaanal ngeen di fàttalikoon ci seen wàllu diine na ngeen di fexe fu ngeen toll koo xam ne bokk na ci fédération bi am na xew-xew moo xam bànneex la moo xam safaan la na ngeen dem àndandoog moom taxawu ko ba loola passé fa tabarakallahu loolu moo indi bis bii tey ñu dem bam ñu ne daal fédération bi ci suñu ndigalu suñu yaay suñu maam di Hadja Rokhaya Diène fa tabarakallahu di présidente d'honneur fédération bi ak Hadji Assane Thiandoum di président d'honneur fédération bi ñu ni daal xalaat nañu ne daal lii daal Seydi Mouhamadou Mansour cër bii nga xam ne moom la ñuy defal fa tabaarakallaahu di ñu ko di ñu ko tegte li ñu ko mën a njukkale tey mooy daal defal ko bis bu mel nii nañu dem daal nañu fexe def benn gàmmu boo xam ne bi dañ ko koy defal ci sacré kër 3 muy bésam ñu fas yéene nag at bu nekk ñu di ko def nag di ci woo nag da ay rëy yëpp fa tabaarakallaahu yi ñu bokkal fédération bi nga xam ne fa tabaarakallaahu 18 daayira lañu yu fasante ko ci gox yu bari ci Dakar ci région yi ba France États-Unis ñi nga fa ñëpp nag ñi ngi leen di woo ci bis bi fas yéene it nag ni ñu tëre tërale programme bi yi ngi koy wax it daayira yi nga xam ne ñoo aju ci fédération bi vingt et ñëpp ñëw ci tànt bi parce que première conférence bi mi ngi commencé vingt trois kon ñun ci suñu bopp ñi nga xam ne ñoo ñànk fédération bi di daayira yi nga xam ne ñooy fédération bi ñoo woo nit ñi nañu fexe ba vingt une heure nañu fekk ci tànt bi jërëjëf président Seydi El Hadji Khalifa Gaye am nañu mbégte kàddu yi rafet na mi ngi noonu woote baa ngoog kon aljuma la 21 mbokk yi dina fa 21 fekk ñëpp incha allah ku yéex nag ci ginnaaw lay toog ndax xam ngeen ni euh, ñu war a def waxtaan bi incha allah taala daañu ñëw léegi muy bis boo xam ne bisu xam-xam la bis boo xam ne bisu mbégte la waaye bisu lislaam bi yëpp la kàddu gi nag dañ koy jël jox ko suñu sëriñ Seydi Mouhamadul Bachir euh, Mouhamadul Mansour moom la ñoo jox kàddu gi incha allah taala mu waxtaanal nu woo njaboot bi waaye waxtaanal ñu itam dénk jullit ñi waaye euh, wax ñu kàddu yi nga xam ni borom bi subhanahu wa taala dénk nañu ko moom la ñoo jox si Mouhamadul Bachir euh, Mouhamadul Mansour si ñaanal ko yàlla na ko yàlla gën a barkeel. sant yàlla bu baax a baax subhanahu wa taala ñuy kontaan bu baax a baax ci waa Sacré-Cœur ne xam na ku jàng siira ñun ñëpp ñu koy jàngee ci sa kanam macha allah xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla yónni na ko ni ko fas daa bi ma tu'mar ndax tolloon na benn xat-xat boo xam ni jamono yooyu képp ku nekkoon jullit da ngay yàlla digal ko mu feeñ di ko yàlla digalee mu feeñ mu dem ba xat fi mu dëkk bu ñu xoolee histoire u mag ñëpp ku nekk ci nga mottalee sa mission bokkul ak fi nga juddoo ndax mission suñu borom moo demee noonu yàlla moo tànnal fii Serigne Mansour waaye tànnal ko ay dëkkandoo Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem na ba waa bani najaar bi mu dëkkaloon dama koy faral di wax naan nahnu min jiwaari bani najaarin ala habada muhammadun min jaar te yonent bi sallallahu wa sallam dem na ba ni yàlla daf ma dénk dëkkandoo ba ma foog ni dëkkandoo suñu borom subhanahu wa taala tuutee kon mu boole ko ci li muy jiital muy farata subhanahu wa taala looloo tax ñuy dellu si wat ci li ñu indi fii ak ñi ñu yàlla booleel ci gox bi ñi ñu yàlla booleel nag kenn ëpp ci magu sëriñ bi di woon soppeem di woon xaritam te inda dikri saalihiina tatanazalu rahamat fàttaliku kan imam Cheikh Tidiane bi nga xamante ni moom kaana rabbaani nekkoon mursid nekkoon kenn rabbaani xaw ma woon lan mooy définition bi bés laa toog di xoolaat waxtaanu kilifa yi di ci jàngi ku mel ni suñu wayjur sëriñ Hadj Malick Touré radiallahu anhu muy wax awsaaf yi rabbaani di am imam Cheikh Fall loolu lépp dafa daje woon dajale woon ci moom parce que dafa nekkoon ci jamono joo xam ni lépp soxla woon ndaw yi ku ni woon ci biir këram yàlla dina ko baaxee bu mu mën a am ndono boo xamante ni tey dina mën a taxawee loolu dina la yéen ndax ni koñ bi meloon ñun ñëpp xam nañ ci dara yàlla baaxee ko tey ba su zawiya bi soxla wala xadra bi soxla wala képp ku mënti doon njabootamay dem ubbi jotaay bi moo xam gàmmu zawiya mam xaaj malik bi amoon bu yàggul ak yeneen ak yeneen ak yeneen beneen bi ñu ngi jégalu ci guddal bi di santaat yàlla ndax ittihaad la ñu wax ittihaad mooy booloo ittihaad mooy bennoo ittihaad mooy jële nit ci marxala bi mu nekk yóbbu ko ci beneen marxala mooy jële nit ci ci ci nit bu demee bu xam nga euh, mam xaaj abdul aziz radiallahu anhu doon na ko wax dégg naa doon na wax naan al maru qalilun bi nafsihi waaye kathirun fii ixwaanihi nit ku nekk da ngay da ngay tuuti su fekkee yow da nga bëgg mënal sa bopp dara mënaloo ko sa bopp waaye il faut nga nga jël sa loxo teg ko ci beneen loxo tegaat ko ci beneen loxo ngir ngeen mën a am kattan ngir taxawal dara imam Hadj Abdou Aziz Dabakh am na bés waa Fougerolles bu ñàkk xam ngeen waa Fougerolles maanaam maa ngi jégalu sax ci publicité bi ndax ci ci waaw waaw maa ngi jégalu ndax ñooñu dañ doon defar tali sama waajur moo ma ko nettali dañu daan faral dañ doon faral di defar kër maanaam côté Blaise Diagne bi li ci njëkk sax li ci njëkk yéem yéeme du loolu xam nga fi mbir mi yéeme mooy bi ñu toogee bés Senghor yaakaar naa wala Abdou Diouf ci seen nguur soxla pour yaatal tali bi maam Alaaji Abdou moo njëkk wàññi këram te yàlla mayoon na ko fi sax ay barab yu yaatu face de l'orme ay toolam la ñu woon fii ci camp pénal ay toolam la ñu woon amoon na ay tool yoo xamante ni bu fa doon dem ci dakaar gawar la woon yàlla mayoon na ko daan na yéeg ci fasam di dem di ko taxawee mu njëkkoon wàññi këram loolu ci ci mbaaxam waaye beneen bi li ci gën a am solo Faucherolles bi ñu tollee ci buntu këram ak ci allée boobu chaque suba dafa daan génne li nga xamante ni da daan génne lu client wam ndax amatul woon kattan ak agem ñu génne ko mu ni daf leen di invité ñu nekkee ñu nekkee ci ëtt bi ñu woo manœuvre yi ñu daan jël ak képp koo xam moo xam gratté nga gratté wala doo gratté daañ la woo indi la ci keppaaram bu dee laax di ngeen ko bokk comme ni ko njaayee yi bëggee wala njóobeen yi dañ ma jéggal bu dee leneen ak leneen itam daan na ko bokk ak ñoom ba ñoom bi ñuy jógee ci zone boobu ñu nekk war a changer dañu doon jooy bis boobu loolu daan na dal sëriñ bi ci jàngale boobu nga xamante ni du moom rek a ko am ci moom waaye daf ko am ànd ceeg ay mbokkam ay mbokkam mooy lan ay kilifaam ay sëriñam du ñu fàtte mukk maanaam maanaam nan euh, euh, nan nan ni ko sama yaakaar ma moom su doon na ko wax mu ci ci ci ay noppam fa fil ifaa i ifaa fa aw fuu fa naqdul ahdi min min min fialil fusuqi waaw fa fil ifaa i ifaa un fa aw fu fa naqdul ahdi min fialil fusuqi waaw fa fil ifa i ifa un fa awfu fa naqdul ahdi min fi'lil fusuqi nee na kóllëre am kóllëre daal mooy nga bañ ko fecci maanaam kóllëre féetewul euh, kanam waaye ginnaaw la féete ginnaaw gi nag mooy Serigne Mansour mënul mënulul boppam dara mënul taxawu ba mën a am dal wala ba mën a am sakina ba mën a am istiqraar te amul fu mu wéer boppam fa mu wéeru nag du maam alxaaj du maam alxaaj Abdou Aziz rek waaye ay mbokkam yoo xamante ni ñoo bokkoon mission bi nekk na ci keppaaru way juram maam Habib si radiallahu anhu bëri na luñ ci mën a wax temps bi mayewu ko mi ci am ci ndigalal kilifaam mi ngi ko am ci ndigalal kilifaam di Serigne Babacar Sy Mansour mi nga xamante ni moom mooy Cheikh Sidi Hadj Malick tey yal na yàlla guddal fanam yàlla sàmm sàmm ko nga xam ni suñu way jur la suñu maam la yàlla na yàlla guddal fanam Serigne Pape Malick si mhm. bi nga xamante ni moom moo yore kaddu kër gi mhm. nga xam ni bi fédération bi tollee ci lii am nañu ndigal dem fa mu recevoir leen mhm. looloo tax teeluñu woon dugg ci liggéeyu wane ni toll nañ ci journée ndax fu nekk rek fu ñu waroon dem Serigne bi nee leen nañ fa dem së Pape Maodo nga xam ni daf koy ni nga koy faral di waxee danaan seen Pape Maodo du sama mag waaye sama baay la ndax moom xaaj Abdou Aziz Dabakh radiallahu anhu di magam di soppeem di xaritam di léppam macha allah mu jox ko ci ndigal noonu la ko yàgg taxawoo itam di ci ànd ak magam tamit ab sëriñ mbay si abdu waaw moom noonu la ñu meloon ak seen njaboot ndax su ma leen tuddee tudd naa seen njaboot yëpp maa ngi jégalu gàmmu gi tam dafa am lu bees ci ñetti point yi ko yu ñu ko tënk mooy gàmmu dafa daan am euh, oustaz bu ñëw wala boroom xam-xam bu ñëw firi gàmm ji waaye dañ ci boole loo xam ni tey dañu ni nañu jël ñu mën a indi waxtaan woo xamante ni benn waxtu la nit ñi mën ci jëriñu te sax duñ ci yem suñu mënee am seen waxtaan yooyu le def ko ci ay brochure nga xamante ni ku nekk ci jotaay bi dina ci mën a jëriñu fii ak euh, euh, beneen kii di ñëw tabarakallah comme ni ko ma xajmaare ku des démb tey gaañ la waaw pour nga innover nag il faut nga am leneen loo jëliwaat li nga xamante ni di nga ko dolliwaat ngir mu mën la ah, Mouhamadou Mansour am nañu mbégte yaakaar naa lii ñun ñëpp daañ ci jàngat yal na yàlla yokk la dëgëral kàddu gi nag dañ koy jël jox ko présidente Ajaratu Fat Seen moom mooy woo kilifa yu jigéen ñi jigéen ñëpp Aja Fat bismillah asalaamualeykum ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli ci sang-sang yi di ñaan yàlla sëñ Mansour yal na yàlla defal ko jàmm defal ko ay magam ak rakkam yëpp li woon nag julliti yàlla yëpp nag ñoo ngi oote ñëpp bépp jigéen buy nekk Sénégal ñoo ngi lay woote sunu bés bii di ñaan yal na yàlla may ñu ci ndam ñu fekk ñëpp tëtal ko alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi sant yàlla dellu sant yàlla dellu sant yàlla ba mu ñu mayee dëkkandoo bu baax bu mel ne sëriñ bii ñu am muy sëriñ Mansour Sy Abdoul Aziz ñuy woo nag ñëpp ñun jigéen ñi ci turu yaa ndey njaay ma kodd la jigéen ñëpp génn te nu teel a génn ndax kuy dalal gan da ngay teel a génn ñu ànd ak nag sunu daayira mu rabbin ak sunu président Mamadou Fall ñi ngi xaar ñëpp waa Sacré-Cœur trois ak ñun waa Vallée ñëpp nañu génn daleel gan ñi assalaamu wa rahmatullah mbokk yi woote baa jigéen ñàngook ngoog na ñëpp teel a ñëw kon ñu jël kàddu gi jox ko euh, borom xam-xam bu mag di oustaz Khalifa gasama bismillah seen Khalifa ñu bàyyi la yow itam nga sànni kàddu ci bis bi aouzu billahi samil alim min asheytani rajim bismillahi rahmani rahim gàmmu gi nga xamante ni moom la ñu war a taxawal incha allah le 21 bii di ñëw kon bés boobu bés la boo xamante ni bésu jullit ñëpp la woote wu ko ngir fii ci tariqa tijaan la bokk wootewu ko ngir kii ci tarixa muridiyee la bokk wootewu ko ngir kii ci tarixa xaadiriyee la bokk daf ko woote rek teg ko ci qawlullah subhaanahu wa taala waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu te Seydil Xaaji Malik radiallahu anhu wax ngir nit ñi réere gi ñu réere aaya boobu mu ni wa qad farraqu diina nabiyi shafiina ka an lam yaji nahyun li zaaka ajibu kon appel baa ngoog ñi ñaan mbokk yëpp yàlla nañu yàlla may ñu teewe te ñu génnaat ci bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf xalifa euh, seen xalifa Gassama am nañu mbégte kàddu yi am na solo foofu la ñoo daaneele kàddu gi nag ful ba la ñoo tëj ñu jox Cheikh euh, Mouhamad Bachir moom itam am na beneen woote boo xam ni dina ko woo kilifa yi réew meek ñi nekk ci notable yi dëkkee euh, Sacré-Cœur gépp ci woo njiitu réew mi di ko woo ci bis bi ci ndigalu suñu sëriñ di sëriñ Mansour Sy Abdoul Aziz di mbokkam di soppeem di xaritam di woo itam soxnaam euh, soxna Mariam Faye Sall ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk gouvernement bi yëpp di woo itam kilifa bi nga xamante ni moom la yàlla teg mbiru euh, temporé fii nga xamante ni temporé fi nga xamante ni ci Sacré Cœur muy euh, Barthélémy Diaz di meeru gox bi Sacré Cœur macha allah di woo itam chef de quartier nga xam ni ñoo bokk ñu ñuy dabaatal di fàttali turam ak taxawaayam ak ndimbalam di suñu wayjur alxaaji Malick Ndiaye di moom xaaji Malick Ndiaye di ko ñaanal moom itam di suñu bàyyi itam Pape Moustapha Sy nga xamante ni suñu wayjur la nekk ci koñ bi macha allah ak euh, comme ni ko suñu wayjur yi waxee ku mel ni Pape Djibi Sall ngi nii ñu ànd jotaay bi nga xam ni ci turam ak ci kàddoom la ñuy waxee waaye ñu ngi kontaan bu baax a baax hada billahi tawfiq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bis ba ngoog incha allahu taala le 21 bii ñu dëgmal bu ngeen ñëwee kenn ku ci ne ni ko séer sëriñ bi waxee sa xam-xam dana gën a dolliku waaye itam di nga gën a gën yëg yàlla yëg yonent bi alayhi salaatu salaam ni ko imam waxee léegi ñu ngi ci woo jullit ñëpp bàyyiwunu kenn kenn kenn kenn kenn fii lay doon ci terrain Sacré Cœur 3 bu ko kenn wutee aljuma lay doon le 21 incha allahu taala ñaanal xalifa bi ñaanal Seyd Mahamadul Mansour Abdoul Aziz yàlla ko fi bàyyi mu ànd ak wér ak i magam ak i wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yallahu rahmanu ya rahimu ya malikun quddusu ya sëñ Mansour Sy bu Alaaji Abdul Aziz Sy Dabakh ku bëgg mbéy la ñu ñëw tey bëgg wan nit ñi maanaam yi nga xam ni def ko fii ci tund wi jëmale ko ci suuf si loolu nag li ko indi ci laay jëkk a tàmbale moo di turandoom sëñ suuf si borom daar yàlla yàlla dolli leeram moo àndoon nag moom ñu def tournée mu ñëw ba fii ci place bi fii mu ne ko sóora mu ne ko si mu ne ko place bii de sama suufa maa ko moom man la ko yàlla jox waaye dellowaat naa la ko jël ko nga ñëw liggéey fi tuur fi sa ñaq loo fi am si nga jël ko yaa njaboot sant man Mansour si bu alaaji Abdou depuis ba mu fi ñëwee ba léegi tool yi nun la fi jiital man Mamadou Ba liggéeyal ci tool bi lu ëpp fukki at ak nangam di wax si mbiru exploitation toolu Serigne Mansour si bu El Hadj Abdoul muy sama wëlëre muy ànd bu yàgg depuis 1976 sa keer mu mës a bëgg tool mais actuellement tool bi yëpp dans l' ensemble mat na 60 hectares donc première partie bi rek mat na 9 fi nu toll nii di waxtaan mat na 51 hectares mais 51 hectares superficie bu yaatu la neexu la emblavé d'un seul coup donc ñu doon démarrer progressivement ñu jëkk si tool bu jëkk bi def fa ay manguier plante ko greffé ko ba mu ngi produire. ñu ñëwaat ci deuxième exploitation bi muy 40 hectares démarré fi tamit ak des fruitiers également toujours fële ñu ngi fa defoon ay manguier de variété quinte muy variété améliorée boo xam ne ne vraiment primé nañ ko si exportation bi fii ñu def fi des limes des agrumes particulièrement ay lime Tahiti ñu citron vert sans pépin ndigal duñu ko caaxaane ndigal duñu ko tardé booba la daal di futtiku ñëw fii ci àll bi booba dara nekku fi du garab du tabax du nekk dara nekku mu ñëw ñu ànd mbaar la fi defoon mbaar mbaar jënd ay la def ko mbaar indi benn lal dugal ko ci biir amul ndox amul courant amul dara jiiti yeeg jaani yeeg wéritu waaye comme ndigal jot na ko mu jógee ci turandoom rek mu ne li ma waxoon di ci nekk ba bu fi dikkee si nga xam ne la ma sama tànk teegu ci maa ngi jéem a góorgóorlu di ci di ci liggéey on s'est rendu compte que ne investissement bi mu fi def parce que tamit toogul di xaar nit ñi dimbali ko daf fi def dooleem def fi plantation def fi ay arbres fruitiers mais aussi gas fi ay teen teen yi fi jot a def donc c'est juste vraiment si analyse technique pour démarrer la woon mais niveau d'exploitation bi mu toll léegi ah forage lañ fi soxla agent de développement la fii lii fi yeewu si nit di liggéey macha allah bari na. am na koo xam ni mënuñu koo bañ a tudd ndax euh, jàppaleem dafa fës ci tool yi muy soxna umu di soxnaam sëñ Mansour Alla Diablo su mu xel soxnaam xam nga ni fii ak Tiwaawan sori na waaye diiru mu kër tool bi fii bés bu nekk ndékki lay jóge Tiwaawan di ñëw añ di ñëw reer di ñëw ci la ñu commencé tarancé jëmbat garab yi ma ñëw fi ànd ak suma kikku bi nga xam ne moom lañu àndaloon ñu commencé jëmbat tool bi ba bii buur mu soog a toppitoo balee fi ñu jógee léegi lu fi nekk noonu moo di problème bi yëpp problème bi yëpp ku ne xam na nun xam nañu Serigne Mansour bugg na liggéey lu fi nekk rek moo di problème yu am yëpp mooy problème ndox ñàkk ndox ndax suufu am na ko ba bu doyal problème ndox lañ am ku ko mën a dimbale ci lu mën a doon ak ku mu mën a doon ku ko mën a dimbale ngir yàlla nga jàppale ñu ñu am ndox mango kent ay kayte ak palmeer moom lañ si jëmbat ci mango fale ci suuf liñ fi jëmbatu variété yi moo di limon orange orange yi nawel am na ci orange yi am leen am na ci orange yi walancia am na ci orange yi payene ak am na ci mandarine commune am na ci mandarine tàngoora am na ci loolu lañ ci def ci variété mais boo gisee réduire wu dem na bépp commencé ñor mais mu nekke nii boo gisee réduire wu ñàkk a ndox luñ ci def rek mu mais def def na fi aussi euh, di maraîchage comme spéculation def nañ fi chou pommé macha allah si euh, xur wi lu takku si superficie bu yaatu def nañ fi tamit soble même tool bi fi nu toll nii am na partie boo xamoon defoon nañ fi pomme de terre di ko irriguer ak en euh, aspersion def nañ poivron. def nañ tamit carotte yu spéculation yëpp def na pour dire que ne euh, c'est pas par manque de d'ambition ou de volonté yooyu yëpp liggéey na mais toujours mu ngi limité wu rek si facteur bi ñu waxoon facteur dominant bi muy ndox mi. lépp lu ñu yëkkati bu jàppale doon suñu sag doon suñu lépp it féetewul fépp doy lépp it yàlla daal def jumaa ji nga xamante ne ñu ngi koy sos keroog ban tédd sama kër laa nekk maag Mamadou mii. ba xaaju guddi xale ba ñëw fa woosin Mansour moo ñëw woosin foofu ci kër ga mu ne man kat si bi moo leen yónnee na nga ñëw wuyu ko ma ne waaw waaw ñëwee sëriñ bi mu ne man maa leen wóolu woon dafa am lu ma niisaaroon waaye yàlla ci mbaaxam yàlla dimbal na ma ci ñu nekk mooy lan mu ne Cheikh Tidiane sama rakk ji nekk fara ci Abidjan moo ñetti juma benn bi ne fii laa ko bëgg sëriñ bi nag di sunu lépp nag suñu lépp la boor bu ne xew-xew bu ne xew na lépp lu ko war mu def ko waaye lépp benn la ndax alaaj Ceerno Daraame sama maam alaaj moo ko jàngal loolu moo tax sëñ Mansour mii fooye wuñu ko ñu kontaan ci moom ndax mm, maamam moo suñu kër gii ndax gis nañ sa taxawaay fi trop ndax bi biñ fi ñëwee ba tey si yaa ñu jàppale ba ñu am juma te lépp séntu ko woon nga jàppale ñu fii gis nañu sa taxawaay bi ñu taxaw fii aussi bu ñu demee gàmm gi it gis nañu ni nga taxawee foofu ak li nga ñu bëgg ak ni ñu fonke bëgg ko ñëpp ak njaboot bi kontaan nañu torop macha allah waaw ndax gis nañu ni ñu taxawoo te bëgg nañu it ku ñu jàppale